jërëjëf ci yéen ñuy suivre sur Wassare Lamb euh, jàngatu lamb euh, sama deuxième partie ma fasin ci ànd ak ki nga xamante ni moom mooy Djily euh, Baye Djily mu nekk sama chéri kon ni ñu koy waxee rek a chaque fois tey nag ñu fas yéene waxtaan ci li nga xamante ni moom mooy écurie Bawol écurie Bawol nag bilan bi ñi ngi def 15 combats 7 victoires 7 défaites benn match nul la may bàyyi ki nga xamante ni moom mooy Baye Djily sama chéri mu nuyoo après nag ñu dugal ki nga xamante ni moom mooy entraîneur bi Fallou Ngom Baye Djily maa ngi lay nuyu maa ngi lay fay soxna faatiment suma chéri bi yow tamit ndax démb ñu bari woon nañ ma ne ma bu la waxee chéri mon cœur da ngay jone waaw moo tax ne damay jone bu baax ne la mon cœur maa ngi lay nuyu di la siyaar di siyaar képp kuy seetaan wasaare lamb di leen siyaar ci àjjuma yu euh, di leen jaajëfal bu baax a baax a baax. Mmh. nuyoo bi am na solo ba ji li ñu fas yéene waxtaan ki nga xam li nga xamante ne moom mooy écurie euh, Bawal. Mmh. écurie Bawal ndax kon euh, seen bilan ñi ngi gis ni ñu ngi def quinze combats 7 victoires set défaites benn match nul yow nan nga gisee bilan boobu ba pare. quinze combats. 7 victoires 7 défaites ak benn match waaw écurie Bawol bi ñuy waxtaanee du Bawol mbooloo parce que Bawol mbooloo bi ñuy wax euh, Bawol mbooloo mooy Bawol bi nga xamante ki ci la tafaatin nekk. mooy Bawol bi ñuy waxtaanee mooy Bawol bi nga xamante ne fa la Wouly 2 nekk fa la Mbaye Gouye Gui nekk fa la Mbaye Diouf nekk fa la Kéwél nekk ak euh, yeneen mbooloomam yi nga xamante ne ay champion lañ nekk foofu ci écurie Bawol parce que boo nee Bawol rek ñu ci bari seen xel day dem ci Bawol mbooloo. bi nga xamante ne tafaatin moo ko jiitee mais nag ñaari écuries yi xëy na benn bawol bi la waaye du ñu du ñu benn. parce que benn la ci tur benn la ci bawol boola bu amee combat da ngay gis écurie bawol ba la ñëw jàppale ko écurie bee tamit bu amee combat da ngay gis écurie bawol mbooloo ñëw jàppale ko mais ñaari écurie la pour ñuy seetaan ñu mën a comprendre tey écurie bi ñuy waxtaanee mooy écurie bawol hmm. écurie bawol nag tey lañ fa yéene waxtaanee hmm. ci analyse yi nga xamante ni euh, wala boog ci ci ci li ñu xamante ni moom lañ jot a def ci seen ci saison bu gàtt bi hmm. euh, ñu def quinze ñaata combat quinze combat sept victoire victoire sept défaites benn match nul mhm. ñoom tamit euh, xëy na mun naa ni euh, mun naa leen a tàccu ne leen mhm. bravo parce que ay jàmbaar lañ parce que boo xoolee saison bi ñu mu bindoo équipe Bawol am ci quinze combats am sept victoire sept defet ak benn match nul ñooñu mën na leen a jaajëfal bu baax a baax a baax di leen wax ni xëy na temps bi gàtt na loolu waaye góorgóorlu nañ par rapport ak équipe yi nga xamante ni jaar nañ fi parce que écuries yi fi jaar yëpp boo tuddee seen palmarès wax dëgg da ngay da ngay jàpp ni am na problème mais écurie Bawol boobu nag bul fàtte ni soxna Fatima am na ay jàmbaar yoo xamante ni ñu nga fa te dañoo bëree ñàkk ku ci mel ni Bour Sine Bour Sine euh, bëri na ak euh, ki nga xamante ni mooy. Ama euh, Sène Junior ñàkk fële ci arène national kéwal moom it dafa dafa niil diggante moom Sunjata <laughs> mu doon loo xamante ni ay xale lañ mais ay xale yu am jom lañ ay xale yu am fulla lañ ay xale yoo xamante ni gëm nañ làmb bu ñu dugg see ay bawol bari na ay champion yoo xamante ni ñu ngi fa léegi nag li may gis mooy li ñuy li ñu war a liggéeyaat yokk ko. bëri mm-hmm. wulli de bëriwul. wulli de wulli de bëriwul wulli de yaakaar naa mu ngi mujjee bëri ci diggante mag ambulance bu Thiès euh, mu mu nekk ak ñeneen daanaan ku ci mel ni mbay Diouf. Mm-hmm. Mbaye Diouf tamit sampion la boo xamante ni. Mm-hmm. làmb soxlawaat nañ ko. diggante mook Alioune Seye junior ba léegi gisaatuñ ko. diggante mook Alioune Seye junior dëgg la ba pare euh, mbay Diouf doon koo xamante ni champion la parce que booy booy xool ci agenda boo ne mbay Diouf bëre na ak Balla Gaye de mii nga xamante doon roi des arènes da xam ni champion la. ku bëreeg Eumeu Sène. ku bëreeg nga xam ne Mbaye Diouf euh, tey làmb war na mën a jaayantewaat xam ne xale la war na mën amaat lu bari ci làmb mu mu def comme ay morom parce que làmb des fois da nekk ci ay ay yenn dynamique victoire yi jékki-jékki nekk ci baisse de carrière am ay quelques défaites rek nga gis ñenn ñi naan non. dafay caaxaan non dafa magal li te alors que du ay mag parce que mbër moom pour man boo demee ba duggoo ci sa cinq ans rek nekk boo mag. parce boo déggee sportif yi ñu bari dañ naan euh, fi ngay tollee sa 40 ans mooy dëgg-dëgg sa digg doon kon kooku noonu mbay Diouf jàpp ma ne fi mu toll nii dugg na ci 40 ans parce que ba tey xale la boo xamante ni euh, mu ngi góor góor ak yeneen naataangoo bi nga xamante ni ña nga fa ci écurie ba mais su ma leen di rek mooy dama leen ñaax ñu gën a góorgóorlu. ñu gën a euh, defaat li nga xamante ni moom la ñuy moom la ñuy gis ci ñoom parce que écurie écurie Bawol équipe la boo xamante ni soxna Fatima équipe bu bu ay xale yu am jom ñoo fa nekk daal. ay xale yu am jom ñoom ñoo fa nekk man ci kaa Mbaye Diouf rek laay wax euh, sëñ Jili mm. ndax euh, mbay Diouf ñëpp xam nañ ni amatul dara lu muy prouver si làmb mm. parce que ñi mu war a bëreel ak ñi mu bëreel tey boo demee benn instant koo xam ni bokk moom it meilleur lutteur rek mm. ndax dem na fu ne moom Mbaye Diouf kon moom euh, écurie am écurie bi présence am rek la gars yi la xale yi di gën a soxla. Mhm. parce que tamit Mbaye Diouf nekk na koo xam te ni expérience am rek bu ko séqee ñi nga xam te ne ñoom rek avantage la ñoom. Mhm. naam nag muy assister day baax. ndax mhm. tey wulli de wax nga ko léegi xam naa peut-être kii bee taxoon mais am na ay combat yu ñu doon dox. Euh, mais nag mbas mi moom moo tax ñëpp xam nañ euh, ki nga xamante ne tey moom mooy kéwal dafa jóge ci mujja dalaat ci sunjata. léegi nag euh, comme que ci defet la jóge moom it. erreur bi mu defoon day bañ a def gis nga combat ak Sunjata nu mu mm-hmm. demee. Mm-hmm. match nul bi te ñëpp amoon na fu ñu ko doon xaar yaakaar dina rectifié rectifié wu mais déggul mm-hmm. wax ndax nee na boo jógee ci defet erreur waratoo koo def. mbay amoon na combat moom ak ki nga xamante moom mooy Mambal la. Euh, euh, Assane Ndiaye moom moo tëggoon loolu. yaa ngi gis fan yi dañuy soog a boucler combat boobu. am na ñeneen ñoom te ñi woon ci écurie bi euh, amoon nañ ay combat mais mbas moom moo tax mais daal li ñu mën a jàpp mooy que ni écurie ba moom wax dëgg yàlla moom macha allah ndax bilan bi moom même bu fekkee sax amuñu ci satisfaction totale mm-hmm. baax na par rapport ak yeneen yu fi jaar. Mhm. waaw léegi nag euh, Baye Djili mhm. dañuy jugal ki nga xamante ni moom mooy entraîneur bi muy Fallou Gom mhm. ndax ñetteel tamit ci ñu borom la dàkkee ñoom liggéey bi. ah ba xam ñoom dañuy dañuy arrêté wala dañuy continuer dañuy jugal ki nga xam xamante ni moom mooy entraîneur bi muy Fallou ngoom ndax nee naa leen yii seen entraîneur ñoom pour ñu wax ci day neex parce que ñoom ñoo tàggat xale yi. Ah, mais loolu yow nan nga ko gisee instant parce que xam nga wasaare daf def loo xamante ni macha allah. ndax nee na kon li ngay xamaguñu ndax tey bu ñëwee ci bilan écurie tey ñi ñuy seetaan ñu bari xamuñu yi ñaata kii lañ am seeni kii bi vrai que mën nañ laa topp mais seeni combat sax dafa mel ni euh, dafa mel ni mi ngi ci kii mi ngi ci ligne bi allo allo oui sëñ Fallou ñu ngi lay nuyu waaw naan la yaa ngi en direct si jàngatu làmb ma ne yaa ngi en direct si jàngatu làmb ah. waaw naka foofu. fii mi ngi nii rek ñuy waxtaanee li nga xam ne moom mooy sa écurie ba allo. allo. ma ñuy waxtaanee li nga xamante ne moom mooy sa écurie Bawal. waaw ñu gis ni ñu def 15 combats 7 victoires 7 défaites benn match nul bilan boobu nan nga ko gisee. allo. allo oui. dégg waaw. ma ne ñu gis ni seen écurie bawal bawal mbooloo. waaw bawal tout court. waaw bawal tout court. ngeen def 15 combats. 7 victoire. 7 défaites benn match nul bilan boobu nan nga ko gisee ci écurie bawal. sept victoire sept défaite benn match waaw. waaw. a que amoon na ay yeneen xale yu fa nekkoon amoon combat te bëriwuñu. waaw waaw amoon na yeneen combat yu fa nekkoon waaw waaw di. kon kon ñooñu affaire bi rek def nañu ko maa ngi lay siyaar bu baax a baax a baax. maa ngi def ak coono mbaa yaa ngi am jàmm. waaw tey léegi nag ñu doon waxtaanee ci bilan wu écurie bi nga xamante ne mooy écurie Bawal ñu gis ni vraiment par rapport ak yeneen écurie yi def nañ parcours bu baax parce ma ne prép euh, ñu gis ni vraiment ak ak yeneen écurie def nañ parcours bu bu baax bu am solo parce que ku bëre quinze combats am ci 7 victoire 7 défaites ak benn match nul ak saison bi nu mu gàttee amoon na yeneen champion yoo xamante ne amoon nañ koo mbaato njortoon nañ ni war nañoo mën a bëre. tey loolu noonu bu amee yeneen sampion yi nan ngeen leen di tàggatee. allo oui. dëgg-dëgg bi waa waaw xam naa ne da ngay déplacé wu tuuti fi nga nekk parce que réseau bi problème mu réseau la est-ce que doo déplacé wu tuuti ñu xoolaale. Ah. waaw mani sànq sama biir wax ma ne écrit yi euh, boo xoolee écrit yëpp seen parcours lu ñu def dafa dafa wàcc par rapport ak écrit Bawol parce que Bawol def nañ loo xamante ni tey mën nañ ne gaa euh, mënoon nañ ko plus que loolu mais dañ leen ciy jaajëfal parce que par rapport ak yeneen écrit yi tey ak yeneen champion yi nga xamante ni waaw faw nga may déglu faw nga may est-ce que doo wàññi suñ Fallou daa am loo dendal dafa am benn musique boo dendal wala benn affaire boo dendal bu fekkee daa nekk dafa am loo dendal loo xamante ne mu ngi mu ngi son bi moo tax. maa ngi yaa ngi ci ci oto. waaw ah, ok waaw la demee kon. waaw kon léegi après dinañ la defaat si incha allah parce que dégg-dégg. waaw waaw dese naa ne. jërëjëf sëñ Fallou. jërëjëf. bàyyi jëli dégg nga li nga xam te ne moom mooy seen entraîneur wax bien vrai que ne nag wax dëgg yàlla li ñu bëggoon yëpp amuñu ko mais ñëpp xam nañ dafa nekk ci yoon mm-hmm. mais moom d'après nee na li nga xam ne moom mooy seen bilan écurie ah nee na moom baax na mm-hmm. que ne na ay combat yoo xam te ni waroon nañ koo bëri mais ñëpp xam nañ ni mbas bi mais moom li mu wax nii li mu jot a wax ban dégg-dégg nga ci am waaw mooy li ma waxoon ci début bi rek nee naa leen sept victoire sept défaite vraiment euh, résultat la boo xamante ni xëy na baax na ci ci ci ci saison bi fi mu toll parce que boo xoolee écrit yi ko fi def da nga leen di wàññi parce que écrit yi fi gën a mag fi mu toll nii amuñu loolu kon tey bu écrit Bawol defee loolu da ngay mën wax ni ah, xale yi kat liggéey nañu parce que moom nee na euh, baax na mais gënoon na bëgg euh, lu bëggoon na lu gën loolu mais nag comme loolu la am moom mu ngi ciy sant bu baax a baax a baax kon bëggoon nañoo xam équipe bi yan difficulté lañ nekk wala yan problème la ñu am mais loolu yëpp jot cee wax parce que nee na dafa nekk ci oto moo waral dégg-dégg bi desee yi ñu koy jéggalu mbokk internet bi ñuy seetaan bu ñu sañoon dégtal leen ko mu wax lépp loo xamante ni jafe la ci équipe bi comme niñ ko defee ak yeneen euh, entraîneurs yi soxna Fatima loolu doon na loo xamante ni euh, loo gis rek mooy liggéey bi surtout liggéey bi équipe Bawol amuñu ay problème mu mbër yu ñuy ànd di entraîner amuñu benn bon man boog li may gis mooy amuñu benn problème mu entente seen biir parce que ku ci am combat da gis mbër yëpp mànkoo doon benn ñëw dooleel seen mbër ci kaw mu am ndam wala mu am defet boo xoolee ci diggante combat Bour Sine bi ak Eumeu seen junior bi ñoom ñëpp dañoo ñëw maase indi kii li nga xamante ni mooy Bour Sine ba keroog bëri na wane jom ak fulaak fayda mais keroog benn ñaari ndamay dugg waaye benn génn benn bi mujjee génn Eumeu Sène junior moo ko jël kon nag mu doonaat leneen loo xamante ni ñu ngi doon xaar combat bu neex bu doxoon ci diggante mbay guy gi ak Mame la Mame la nekk koo xamante ni yàgg na ci làmb bëri na ak ndaanaan bu nekk mhm. mbay guy gi doon xale boo xamante ni mu ngi def ay preuve moom it jëm ci kaw jël mambala muy wane ni que ni mbay guy gi fi mu toll nii jël na mambala mais jàpp na ni mu moo ko gën a bëgg combat bi te mambala boo xoolee digganteem ak Tapha Mbeur keroog indi na état de forme boo xamante ni wane ni ñi tëddul woon di nelaw waaye li mu pertoon ci làmb bëgg na ko rattraper kon combat yooyu day doon combat yoo xamante ni combat neex la ak yeneen mbër yoo xamante ni ñu ngi doon séntu seen combat ku mel ni wulli 2 nga xam ne moom champion la ak sama xarit ba wulli 1 koy nuyu bu baax a baax a baax ah. Euh, am na combat mu nga mu am Adama Diouf waaye. <coughs> ñoom ñaar ko ci faral. laay laay la ko ci faral sama ñaari xarit ñooy bëri. Hmm. Adama Diouf ak Wuli. mais man ki ma ciy faral mooy làmb. Hmm. parce que man làmb rek laa bëgg. te Adama Diouf signature contrat am day neex. Hmm. Wuli nag moom day neex di début à la fin. ba jouru làmb ja ba après combat ba day neex. parce que maa ngi koy dégg mu naan nañ ma ko jàppal parce que Adama Diouf euh, dafa am dafa am ñaan. kon mooy wan ni Wouly am na fu mu teg combat bi te dégg naa ko ci biir waxam mu ne combat bi du wax kese moo koy gagné damay entraîner lu metti pour mën a daan kii di Adama Diouf mais loo ci mën a dégg mooy combat boobu bokk na ci combat bi dàq ci année bi. leen di invité fii sax ñoom ñaar waaw loolu dina neex loolu moom xam naa ne ma xalaat dugg seen diggante ñoom ñaar parce que bu toogee lii Adama Diouf toog lii. seen diggante ñoom ñaar ndax xam naa ne dina neex dina yëngu sama hmm. Fatou. waa di ko jaajëfalaat bu baax a baax mooy euh, jili sama chéri analise bi am na solo. Hmm. mais damaa bëggoon ñu taxaw tuuti fenn. Hmm. muy kaawu Wouly 2 laa bëgg ñu waxtaanee. parce que da ngay gis ni am na fu mu toll. du ma la sax am na fu mu toll woon ndax euh, dafa bëreek ak ñi nga xamante ne moo ñu nekk ci kaw. Mm-hmm. mais est-ce que tey jaadu na Wouly 2 depuis combat ak ambulance ba léegi mooy loolu day indi ay mbër. Mm-hmm. est-ce que tey jaaduwul loon Wouly 2 euh, waroon nañoo dégg instant bi sax ay combat am bien vrai que sax Covid bi mais waroon nañoo dégg ay combat am yow gisoo kaa Wally Ballago dafa commencé mel ni comme dafa mel ni day taamu ay mbër ndax gis nañu ku ko laaj mu ne diw laay bëre te moom. Ah, amaana sax mbër day osé. ko hmm. dama ko waxee woon mais est-ce que tamit gisoo ni ah Wouly 2 taamu bi xaw te kii tuuti. <laughs> wax naa ko ci samay benn benn wax nee naa la soxna Fatima borom bitu mbagg boo gis. Hmm. soo xaree dënn bi magasin nga ciy fekk. Wouly 2 dafa bëre xale boo xamante ni doomu Thiès la xale bu oos mën a bëre macha allah am kàttan mu bëreek moom euh, bëreeg moom ci combat boo xamante ni combat bu duré la. Hmm. ba pare daan ko jël boo xamante ni jël bu rëy la léegi nag comme bëri naa xale boobu day jàpp ni fi mu toll nii yéeg na ci làmb te vraiment Wouly 2 yéeg na ci làmb xëy na am na ñoo xamante ni ñu problème adversaire ci làmb war nañ ko mën a may sens parce que nag làmb mënoo nekk di daan ba pare di taxaw ci benn étape bi da ngay war di mën di yéeg jëm def jéego jëm ci kaw Wouly 2 moo waral fi mu toll nii ñi muy soxla ci làmb duñ ko soxla. xëy na nag moom it war na mën a xoolaat bu baax a baax a baax parce que ñii ñu yaakaar ni war nañoo mën a daje ak ñoom ñu ngi am combat ñu ngi bëre seen biir. Mhm. parce que Wouly 2 Garga 2 combat bu neex la. Mhm. Wouly 2 Mama Lamine combat bu neex la. Wouly sax. waaw Wouly 2 doomu daangu. combat bu neex la bu neex a ngi noonu. ba pare Wouly 2 mën na bëreeg ñeneen ñoo xamante ni ku ci mel ni tey Wouly 2 pourquoi pas ñu ne Wouly 2 wax góor a soog ñoom ñaar ak yeneen xale yi nga xamante ne ñu ngi ci làmb amaat contentement nag bu baax a baax ndax yow nee naa la heure bu ma euh, heure bu ma pelloo ak yow rek damay am lu ma neex parce que yow loolu xam nga ko ndax ñi nga xam te ne ñoom ñoo ñuy seetaan si wasaare làmb mm-hmm. gis na seen commentaire yi te yow da ngay topp espoir yi espoir yëpp say xarit lañ mm-hmm. moo tax wax dëgg yàlla su ma sekkee yow palaat ak nopp bi ma la nopp loolu yëpp day joué di la wax sa kàddu bu mujj maa joxe nag dama pare de di la jaajëfal bu baax a baax a baax euh, di wax ni ñoom ñi ñuy seetaan ñooñu gën a xam làmb kenn du ñoom Fatima mhm. parce que des fois nga wax sax boole combinaison yoo xamante ni àndul ñoom ci boppam ñu commentaire wax que ni combat bii ak bii ak bii moo dàq kon ñoom ñun dañ leen a dañ leen a ëpp fit rek toog fii xëy na di di di wax waaye ñoom ñooñu gën a xam fuuf li nga xamante ni noonu la làmb di dundee ak noonu la làmb di ñu leen di jaajëfal bu baax a baax a baax fépp fu mën a nekk ngay bëggee wasaare làmb maa lay jaajëfal tey nag da taw Mm-hmm. waaye moto bi mënul woon génn sama chauffeur moo ma indi. Mm-hmm. Ibou Ndaw moo koy siyaar bu baax a baax Seri Anta Ndiaye. Mm-hmm. indi na ma daf may xaar ma pare mu déposé waat ma ma ko ciy bu baax baax a baax di ko siyaar di ko ñaanal bu baax a baax a baax moom mais li nga sañ si rëy na cant gërëm ma ah, ñeel na leen bu baax a baax nii rek lañ koy defee jàngatu làmb ànd ak Ousin wala ànd ak ki nga xamante ne moom mooy sama chéri mon amour ah, di jox ñëpp nag dig daje di si lënd ya ah. waaw après ñu prévoir génne yeneen yu bees maa leen di jox dig daje ba suba incha allah fii ci wasaare lamb jërë ngeen jëf. rang muy gaaw rang muy gaaw.